koy euh, njëkkal mooy rek di wane suñu sunu mbégte ci ànd gi nga xamante ne bi ñun ñëpp àndandoo nañu ko muy ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi ànd liggéey ak président Macky Sall muy euh, ñi xamante ne bi ñoom la doon liggéeyal mu ñu nekkoon ci benn bokk yaakaar ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw bees également ngir ànd ak moom ngir ñu liggéey Sénégal ngir intérêt Sénégal muy le président euh, Idriss Seck muy le président Moustapha Niass muy madame Aminata Mbengue avec le PS et tous les autres partis de la mouvance présidentielle tey jii ñoo ñëpp seen i njaboot ñu ngi fi tey ànd ak ñun ñu bokk yendu di xàccandoo di dóorandoo ñu ànd nag wër li nga xam ne moom le président def ci dëkk bi parce que ñu bare bari dañuy wër di siiwal naa président Macky Sall defu dara Touba defu dara Touba te loolu wut ak li nga xamante ni bii mooy li nekk barki démb wax nañu ne li muy def ci dëkk bi li ko yées juróom-ñett fukki milliards bëriwut loolu dañ koy mën a lim boo jëlee tel yi nga xamante ne bii mooy trent bi wër daanaka 12 milliards 800 millions la nga jël li nga xamante ne bii mooy assainissement ndox mi nga xam ne mooy jóge ci kër yi mat 9 milliards 700 millions nga jël li nga xam ne mooy assainissement taw bi loolu tam muy xaalis bu bëree bëree bëree bëri am na lu ñu ci defoon lu bari yokkaat nañ ci 1 milliard 200 ngir gën a yokku conduite yi ngir yóbbu ko ba fa nga xamante ni moo di moo di puuf gi <clears throat> nga jël ci wàllu santé am ci lu mat 32 milliards ci benn hôpital amaat ki 6 milliards ci biir bu Matlaboul Fawzeyni te ma taxaw ci 32 euh, milliards bi nee nañu Afrique de l'Ouest hôpital mel noonu amu fi te bu paree buñ ubbi ko bu nit ñi gis ko loolu dana danañ teg seen bët ndax li may wax foog naa mi gis suñu karam kon ñëpp nañu téye loolu ñu denc ko mu mat lu mat 300 lits yoo xam ne sax mën nañ ko yokk ba mat 500 lits boo ñëwee fii nga taxaw ni man na lu mat mi milliards loolu bukk ak ndox mi ñetti forage ak ñetti château d'eau yoo xam ne ren jii rek aujourd'hui ñu ngi ci boolu ma ci li nga xamante ne bii pare woon daaw avant euh, avant màggal gi nga ñëw ci wàllu électrification tey ji am na 20 kilomètres yoo xam ne ñu koy def bu fekkee da ngay dem sàmm euh, fàttali naa léegi sécurité sax bi may bi may njëkk di wax li fi def ci eh, ci ay commissariat euh, li nga xam ne aussi moom la ñu def ci wàllu brigade de gendarmerie ci wàllu escadron bi loolu lépp également pour renforcer sécurité dëkk bi parce que dëkk bi dafa rëy fenn fu ne nit dafay jóge également ñu ngi may signaler les postes les centres de santé donc loolu lépp bu fekkente ne bii boole nga ko dafay loo xamante ne bii doy alal bi takku te loolu moo tax sunu kilifa yi nga xam ne du duñu waxal ku dul yàlla lu dul yàlla aussi du leen tax a wax moo tax waxtu wu nekk ñu ngi sant di ko gërëm loolu si moo tax sëriñ bi ne ko rek yow defal li ngay def te bul geesu bul seet nit ñi defar ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mi tax ngay def dana la fay te sëriñ Tuubaa am na fay te ku mu fay da nga fay lim am loolu mooy li ko ko may kon loolu yi nag moo taxoon tey ñu ne ñun dañuy jóg euh, parce que ñun dañuy liggéey ak moom au plan politique parce que ñun aussi dañuy dëkk dëkk bi di ay taalibe di ay gor te ku ñu defal ñu war laa sant dëkk ci également ci réew mi ba képp koo xam ne yaa ngi tabax réew mi am ñu jóg bëgg a nasaxal liggéey boobu ci ay wax yoo xam ne ay waxi kasaw kasaw yoo xam ne tegu fi benn barab dañuy jóg nag loolu ne leen kat mbir mi nii la demee ñay wax loolu nag waxuñu ak ñoom parce que duñ mos a wax ñu mukk ci mais ñun ñu ñuy teel intéressé ñu mooy le peuple sénégalais ñi nga xam ne tey jii ñu ngi nii xool ñu ne boo ñëwee fii ci Touba lii mooy réalité bi fi nekk te réalité bi fi nekk alhamdulillah mooy réalité également bi nekk dans tout le Sénégal boo demee Dakar investissement ya jege na 2000 milliards boo demee Casamance c' la même chose boo demee côté côté nord c' est la même chose nga dem côté est c' est la même chose foofu dem fu ne noonu la dem parce que aussi loolu mën na ci ñëwaat li nga xam ne mooy programme d' équité et d' sociale nga xam ne bàyyiwuñu dara eh? kon loolu nag obligation la si ñun ngir ñu leeral ko nit ñi ba ñu xam ko bu seen bopp yi mën a ubbiku ba kenn du mën a ñëw di ci loo xamante ne bii ay wax yoo xam ne wax yu wax wax ko daan ko saret la loolu moo tax ñun tey ñu jóg jël suñu ay responsabilité ànd ak suñu ay xarit ànd ak suñu ay mbokk ànd ak suñu ay partenaire politique ngir nag taxaw fësal bilan bi nga xamante ni mi ngi ci mi ngi ci dëkk bi te kenn ku nekk bu ko fësalee ci commune ba mu dëkk kenn ku nekk bu xam ne président li nga xam ne def na ko ci réew mi ci diggante ba gàtt bi kenn xamul mu taw dañu nekk ci contexte bu bu particulier ndax Covid 19 bi dafa ñëw daaw daana ci suñu kaw te kenn xaar ko woon euh, ñu jël lu man 1000 milliards ci budget bi defaat ko feneen loolu am ay chantier yoo xam ne xañ na yeexal na ko mais plan de relance bi ñu teg tax na ba tey ji chantier yëpp reprendre na ba alhamdulilah nit ñi ñi ngi ñi ngi liggéey ba feeg diir bu gàtt bu ci yàlla andee xañ na yu ci bare bëri mën nañ ko réceptionné mais ñun et bi également ci ci bit boobu lañ ko defee pour xam ni nga xam ne mboo xew sur le terrain lan mooy dox lan moo doxut su boobaa danay xam ñun ci sunu liggéey yan xàll yan conseil Eh, yan euh, xeltu la ñu mën a joxe pour que kat changement am ci yenn yi ngir yëf yi gën a gaaw ngir lan lu nekk moom na mu ko yéenee woon te xam ne aussi ñu ko yore aussi ñoom it noonu lañ ko bëggee sunu borom dimbali ñu ba mu demee noonu parce que ñun ñëpp ñoo ci war a bokk benn euh, taxawaay bi. kon loolu aussi bokk na ci objectif li nga xamante ne bii mooy visite bi te aussi ñun foofu lañ mën a féetee dëkk bi gis nga c'est pas pour ne comme ànd ak un député de l'Assemblée nationale moom itam bu war a plaider dëkk bi Touba ak askan wi. bu soobee yàlla dana ko dana ko def ci ci fànn googu pour diir que loolu lépp rek dañ koy def non pas même pour di def politique ndax li dépassé na politique parce que suñu ñu nekk nii tey jii eh, APR moomu ko Sénégal moo ko moom kon li ñuy def dañ koy def pour les citoyens sénégalais dañ koy def également pour askanu dëkk bi